naa bàyyi cim réew ñoo defoon jalooroy démb gi mbokk yi les sages de la lutte sénégalaise Moustapha Gueye moo leen jiite ana nu nar xanaa le 15 mai ca stade Iba Mar Diop mu doon làmb lutte traditionnelle kun ko tudde ñu ne Makhtar Ba ministre des sports Makhtar Ba borom coupe d'Afrique Makhtar Ba qualifié coupe du monde Moustapha Gueye ni dañuy ànd sargal ko mbokk yi moo ko ñamu àndal les sages ay jàmbaar la woon woon ay roi ngi ci champion ngi ci champion d'Afrique ngi ci lu ne ngi ci ñu ne nag lutte traditionnelle la ñuy def ah mbokk yi lutte traditionnelle bu ko déggee boo xoolee làmb ji ñi ko muy mbëri yi nga xam ne ñooy bëri lutte traditionnelle kon mbokk yi le xam nga kan Momo ah Momo mooy kan boobu Momo Ngom mel na ni bi nga xam ne loxo baayam la yor baabu gopp ak kan mayang ñun mooy way mbokk yi mu doon bis boo xamante ni bisu làmb la bisu culture la képp koo xam ne bëgg ngaa gis làmb cosaan bëgg ngaa bég ci tàggat yaram le quinze mai ñu ngi jëm fan stade Iba Mar mbokk yi lii bis la Moustapha Gueye ku ànde kat topp ci ginnaawam mbokk i Xaadim Njaay topp ca Kayre topp ca Sadji mbokk yi ñooñu ñoo yoroon lamb ji démb kon jox nañ leen rendez-vous le 15 mai stade Iba Mar Diop mise bi ñaata la ñu ne 5 millions ah 5 millions après drapeau chef de l'État ñun ñëpp fa lañ jëm amatul benn faral si lamb ji comme taxaw nii taxaw bu baax a baax jam mbégte ak contentement bu mag jàkkaarloo ak yéen waaye nag mbokk yi jëm ci bis bu mag bis bu am solo ci wàllu làmb mbokk yi jëm ci bisu le 15 mai ànd ci moo géet waaye nag ñi xamal moo ak Pape Souleymane Bathily bii bu ñu fàtte nii suñu mbokku internet yi ñoom lañ ci àndal boobu ba léegi ca départ ba ba léegi ñuy dox ci promotion lamb ji di ci dox guddi ak bëccëg ñu leen di féliciter bu baax a baax di leen xamal ni presse bi mention ba ci biir koor gi ngeen bàyyi seen ndogu yi bàyyi seen ndogu kër yi di ànd ñun ci liggéey bi di ci sonn kon lu suur si ñu ngi tàllal loxo moom di ko tàllal loxo Pape Souleye Bathily ñu bàyyi suñu confrères yi ñu ñëw liggéey te bu ñu liggéeyee ba pare allah rabbi d' accord nañ ne fii ba zéro heure bu combat bi jeexee loolu d' accord nañ mën na nekk waaye après 4 jours ngeen di teg combat combat non loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu wuñu ko kon donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mbokk yi ñu leen di nuyu di nuyu réew mi nuyu bitim réew. barki démb la ñu demoon ca Poussé Poussé dégg li mu wax Alaaji Mbaye nee na ko alaaji mbay bu ma la jàppee nga xam ne lépp dëgg la waaye nag tey dogo la ñu jàkkaarloo dogo ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokki internet yi balaa ñuy ñëw ci laaj waaw asalaamaaleykum ginnaaw ma sante yàlla julli si yonent bi maa ngi gërëm samay ñaari waajur di ñaanal sama yaay fu mu tëdd yàlla ma yàlla xaare àjjana ak képp ku fa fekk ak ka fa fa fekk di ñaanal sama xarit yi nga xamante ni nekkatuñu fi maa leen ñaanal yàlla xaar leen àjjana di nuyu presse bi yëpp waaw di jégaluwaat parce que ni mu demee nii xam nii rek la mën a demee waaw affaire yi man doo sax comprendre waaw parce que alaaji nitu nit ñi la moo tax bu xewlee faa mu mel nii di jégaluwaat ñëpp di leen baalu àq di nuyu promoteur bi nga xamante ni moo tëgg làmb ji te xam ni def na aller waaye mu ngi def retour. waaw ba ci kanam. waaye yaakaar naa ni léegi internet bi dafa wër àdduna barki démb dégg nga li Bousse wax Bousse dañ ko laaj boo alaaj boo jàppee alaaji mbay noo koy def mais la mu ca teg doy na waar dégg nga ko bu baax a baax. waaw ah, la mu ca teg yow yaa demoon laaj ko. yaa may wax ne ma lii la la Bousse wax ma tontu la lool. mais gisoo la Bousse fecc ak fa mu ko dugal ak fa mu la dugal loolu gis nga ko. bàyyi baal la man ko ñu fàllaay balle laa dëkk. waay wallaay fii ma taxaw nii di open presse sama baasu ngénte fii lañ ko defee man fii lañ ma ngéntee fii ngeen taxaw nii yaa may dégg buuse maa ko gën a doon waga est-ce que yaa may dégg maa ko moom dañoo bëre 24 minutes ma duma ko daan ko fàtte xaju fi bu gaa yi taxawee nag bëgg a jàpp ni mel ni moom moo ma daanoon te man maa ko daanoon loolu dafa may xaw a jaaxal buuse bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko wala dégg li ma lay wax buuse nee na bi nga daan xale la woon te léegi xale màgg na te am na beneen expérience bu nekk ci moom buuse dem na MMA buuse nee na léegi dafa yeewu buuse nee na jàkkaarloog yow ci arène nationale bi moo la tee daanu Alaaji Mbay ak koo mën a àndal nee dina la daan ba daan ñi àndal yow Baye Balla ak Midiaye Fadel man dafa am ñu doy waar ñu nekk sama ginnaaw man Souleymane Balde moo ma tàggat jàngal ma bëre may ànd ak ay homme de valeur ay commerçant yu mag ay construire ay njoobu këy ay seex mbëtë di ma yor boxu ay luus njaago may ànd ak ay abo di ànd ak ay Ismaïla Teranga Précise di ànd ak ay Fall di ànd ak ay Ndekki Gueye Ndekki Diop di ànd ak ay élu Assane Wade Ousseynou Wade di ànd ak champion bi nga xam ne moo ñu war a indi roi des arènes Pikine muy Ama Baldé bii ko paako maa ko gën a maa ko gën a xajam laa la wax alaaji poussé nee alaaji mbay xulli na la ñetti yoon ci ci ci dina ko doo xeex doo bëri eh, poussé alaaji mbay nee alaaji mbay poussé nee na combat def ci liggéey te gis nga ko dafa am doole te physiquement dafa taxaw boo moytu da lay yóbbu à l'insuline bëre loola xeex loola daan la gars may la ñu tuuti. ah gara ci suuf a suuf gara gara gara. waay ma àggale ak ñii waay. wuy ma Baye Fall la. Baye Fall la buub yow laay waxal. xam nga lan laay ni ban bàkk bees. samay bàjjen laa ciy sargal. dama ne maa mbay Masiri. Massiri Mambay ñoo bokk benn maam. bu soog. bi nga xamante ni moom la yàlla dogal mu tëggaat lii. bi moo gën. di gërëm Pape Souley mi nga xamante ni moo koy démarrer affaire yi boobu ba léegi toxiwul. di sant moo bu baax. kan moo lay indi. waaw ku ma indi comme d'habitude ki may ñi may indi mooy ñi ma doon indi ñi may indi mooy samay xarit Alaaji Mbay waxal Alaaji Mbay buusee barki démb ma ñëw sama gaay amoon que dama koy jël dama koy jël di nga war a woo di nga leen woo da ngaa dégg benn boo xam ne àdduna koy xaar di félicité moo gën event bi nga xam ne moo ko taxawal ndax combat bi ku ne bëggoon ne ko mu dëggal ci moom la ko yàlla dogal di wax képp ki amateur lamb na nga bàyyi bis boobu te xam ne bis la ci bis yi waaye El Hadj Mbaye Boucher barki dem dañ koo dékk bi keroog mu ne waxul waxi daan waxi damm lay wax daan ne déglu leen ma galgalam bopp yi def bu ko defee dama koy damm te duñ ko waxee dégg ko loolu doon ci loolu waaw boobu yàgg naa wax lu mel noonu man Boucher sama premier combat moom moo ëppoon parce que au premier combat moom Ketchup bi la jël ko yeloo ay extérieur def lu nekk mu ñëw ma daw trois pas mu naan day sees ma longal ma boo leen tàppee nen bi gis ko yaa ngi dégg waxu bu koy wax ay MMA koy damm da nga koy ñemee xool koy damm da ngay ñemee taxaw jàmbaarloo ak moom bàyyi bàlla billaahi wallaahi wa taalaahi xoolal man lu ma wax dama koy def xaw ma ba xam poussé ñëw ma ci làmb ji trahir def leneen mais man li ma wax dama koy def bu taxawee ma ak bu bëree dama koy duma dama koy daan. bi ko laajee wàllu xeex ne ko ndax ñeme nga xeex a Alaaji Mbay def ne Alaaji Mbay amul fi ñu jàkkaarloog man parce que ku ci mel ne Sa Thiès laa yoon di yéeg moom di wàcc loolu tontu loolu. waaw xanaa jàkkaarloo waat man Boucher jàpp ma ko fii du ma ko daan ko loolu doo leen ci wax yéen journaliste. non nee koy daan xale la woon léegi daa màgg koy daan boobu leelul daa amoon garaw léegi amatul garaw mais Alaaji ñamal ñu tuuti ñamal ci li nga nar a indi ci bis boobu noonu nga ne baara nga ne waaw gërëm ñi fi nekk ñëpp gara ci suuf waay ngir yàlla del déglu ay eh, waxaatal li nga waxoon léegi gara bu may dëggal ba mu yàgg su ma la nga ni maa jàpp la la damay gërëm ñi fi teew ñëpp di gërëm presse bi yëpp ndax alaaji làmb moo may xëcc di ma dugal ci biiram ko waxoon nee na man làmb moo may xëcc di ma dugal ci biiram damay won ginnaaw làmb di dem sax làmb xëcc ma ni ma alaaji par force di nga bëre loolu man ren la koy yàlla defal est-ce que yaa may dégg may gërëm waa koñ bi yëpp di leen baalu àq parce que vraiment lu ma xewle fii laa koy defee. fii laa juddoo fii laa yaroo. waaw Xaadim Diagne mënul nekk sama ginnaaw gauche nekk sama ginnaaw Tafa Diop nekk sama ginnaaw Bousse ni moo ko jàppale. Ndiogu Gueye transporteur nekk sama ginnaaw. Pérès Koumé nekk sama ginnaaw Mariasin may sa biige may sa biige Mar nekk sama ginnaaw. Waly Balla ko Seck. Awa Ama nekk sama ginnaaw. Moo gën mi dégg combat bi nekk sama ginnaaw.

waaw loolu bu ko waxee ñooñu am nañ droit jàppale ko géejuwaay lañ dëkk man buuse ngir yàlla na ma bàyyi ak sama Ama Baldé bii rek ndax lu ne dama koy dégg mu koy wax waaye diggante yëpp dugg na ci waaye booboo koy def yaa may dégg na ànd ak waa géejuwaay yëpp bàyyi ma ak sama waa Pikine yii boobu naa ne nga parce que man am sama nit moo ma gën a làmb am sama nit moo ma gënal ay millions li ma lay wax ni dama ko gëm barki Cheikh Fall si ba ne ci kaw moo ma jàngal bëre moo tax ma bëgg bëre da doon bëre ji ba ñëw man maa koy maase maa koy jiw qualité ak pétrole pour mu mën a nelaw. lamb dafa nekk sama terrain kër gii mooy kër Fallaye Baldé kër gii mooy kër Mané Sène min ko fulaatu lu mel ni min laa xeex wala bëre waaw arbitre sifflé xeex wala bëre da ngay jëli wala da ngay xeex wala da ngay xaar lu mu laaj dinaa ko def lu mu laaj dinaa ko def c'est parce que dégg nee na aw ma jàppale wax na ko bu arbitre sifflé dinaa ko may 30 bu mu nekk naa ko fekk waaw. ñun suñu ngor la ñuy demee ci làmb waaye yaakaar naa ne ki war a def xaalisam ci musique lu ma am si bële daf naa ma jënd ko ñaari saako suma xoolal noo ko defalee sama am dara lu ma am sama papa loolu la may lu ma am pour suma loolu la may man lu ma am suñu laa koy def mais pas ay musique dinaa ñaan lu nag parce que ku nekk ci làmb di nga ñaan mais su ma amee loo amaguma loo xamante ni dama koy jël ay millions yoo xamante ni dama koy def ci làmb làmb sama fit laa yóbbu ak sama fulla ak sama jom ak sama ñaanu waajur ak sama ñaanu maam sa digganteeg waa Pikine nga woote lii bari na mbër yu mag yi nekk Pikine sax te mun noom li sa digganteeg waa Pikine lan la waaw mooy li ma lay wax man Pikine man Pikine man maay rab bi maay rabu Pikine comprendre nga man Pikine du ma seen mbër seen xarit laa comprendre nga man dama am mbër man Ama Baldé mooy sama mbër. moo lay indi làmb waaw man dama am mbër. ndax man dana xam. waaw man man man bërekat laa eggaguma dimension mbër.